dem waaw tout droit zoal Fadiouth stade François bob waaw fi nak bo leen ñu fi gisee wa lamine TV ngeen xam ne événement la ñuy waajal inshallah rabbi gars non du dug le 30 décembre vendredi le 30 décembre vendredi bi di ñew lamb ju reuy fi lay amé 1 million 500 000 lañ tégal mbeuri ci benn drapeau neex na ba nopi animation Mbayang Loum japp Diagne nañ yéeg ci kaw tribune bi waxtaanee ko. wax leen lamb ji si yan anam lañ koy organiser li ñu koy organiser détails yi si nekk yëpp ak niñ bëggee mu doxee ak niñ ko fa yéenee organiser ah. gars yi kon tout droit fii ci Joal Fadiouth ci biir Lamyn TV ngeen koy amee ah. daa mel ni Diab Senghor moo nekk ne Martin ak yeneen gars yi Zal caméraman bi jiitu Lamine di wax di caméra rang. tout droit Joal Fadiouth nuyu nañ leen ziar nañ leen bëgg nañ leen bu baax baax yéen mbokk internet ñuy suivre ci Lamyn TV ah boo ñu gisee ñu toogaat fii ci Joal Fadiouth stade François Bopp ngeen xam ne xew-xew moo amati xew-xewu làmb comme ni ma leen ko waxee ci début bi làmb ju rëy lañ fiy waajal kañ lay doon ñu ne vendredi vendredi bii di ñëw vendredi le 30 décembre 2022 ñu tegal mbër yi mise bu tolloog un million cinq 500 mille francs

moom lañ bëgg si làmp ji maanaam yéen mbër yi ni ngeen di ñëwee yéen amateurs yi ni ngeen di ñëwee ban heure lay commencé ban heure lay jeex hmm? lu tax ñu organiser làmb ji waa Joal détail yooyu yëpp jaab na leen ko reeral ci biir waxtaan bi balaa ñu ko jox micro bi dañ koy nuyu bàyyi mu nuyoo jaab siyaar nañ la. delloo siyaar Lamine. Mhm. maa ngi lay nuyu di la sant di la bëgge yow ak uh, gentleman caméraman. Mhm. Euh, di nuyu Martin bi ma toogal. Mhm. le grand champion. foog naa boole na Martin ñëpp xam nañ ko. Mhm. grand Badara ñu ko doon wax grand cuuc. nekk moom tam champion bu mag. Mhm. boo xam ne lu ne def na si làmb day baax sa ñii gars yi di waxaat seen histoire ñoom fi ñu jaar dem na boo yoo xam ne tey. ñu ngi suivre làmb te xamuñu ñii te ñii def nañ lu ne si làmb kon ma koy nuyuwaat. Euh, di leen di nuyu bu baax a baax di leen di siyaar. léegi jaab si li ñuy njëkkee rek mooy làmb ji diggante fi ñu ko jàppee ak fi mu war a amee jàmp na. pourquoi affaire yi gaaw parce que tey ñu ngi kañ ñu ngi mardi lamb ji di vendredi. Mm-hmm. waaw Lamine foofu moom moo taxoon sañu gën a bëgg a leeral si côté boobu. Mm-hmm. lamb ji boo gisee mu mu jàmp te gaaw. Mm-hmm. Euh, dafa am festival bu fi war am. festival bi mu ngi tudd festival Xeman Jong fa Faajut. ci olof. Euh, si olof moo ko mënee tënk mooy festival defar Joal ak Fadiouth ndax Joal Fadiouth Ngazobil benn commune la. waaw festival bi Xeman Jong fa Fadiouth la. léegi nag festival bi. bi mu amee li tax mu am sax dafa am benn partenaire u madame boo xam ne moom moo génne xaalisam ne day financé pour nous des festival ndax mom culture eh, mais nous avons une tam culture mhm. Donc, nous donc festival bi am du madame Je mhm. partenaire en charge bi mu en charge nous avons programme rap histoire mais man avons ne histoire Joal culture te waxoo làmb làmb bu dul p di deux mhm. kon mënuñu wax lu toll ni festival te dugaluñ si làmb vraiment ñoom tam ñu xam ne tam euh, loolu tam mooy dëgg mhm. moo tax nag niñ ko jàppe ak affaire bi mu jàmp ñu mujj si dugal ñu mujjee si dugal làmb ji mhm. làmb ji war a nekk ajuma comme niñ ko doon defee rek euh, comme niñ ko doon defee comme làmb yi fi jaar comme li ma la waxoon dañu bëgg dundalaat euh, làmb Joal Fadiouth waaw loolu moo waral ñu dugal si làmb ji ngeen duggal ci lamb ji muy lu am solo li nga wax parce que ku wax lamb Sénégal wax zoal Fadiouth yaakaar naa mooy dëkk bi nga xamanteni amna ñaar roi des arènes Manga de nek na fi roi yahé job yëg na ni nek na fi roi yenen champion tamit joge nañ fi def lu réussir lamb muy ci lit avec frappe ak lit simple donc gatcha nga la ma waa Joal ba ngeen di def sen festival boole ci li nga xamanteni mom moy lamb parce que bo len ko defuloon mën nañ len see ngagn kat zoal nga tëgg fi ngel tëgg fi ay concert rap ak yenen ak yenen yëfu tubab yoy te bolé wo ci lamb lolu kuko def togn nga jab léegi lamb ji le 30 nan ngeen koy waajale ak nan ngeen ko buy organiser. lamb ji comme niñ ko comme niñ don waajalee yenen lamb yi. Mhm. euh dañuy wo amateur yi d'abord. ndax ñun dañuy wax né lamb bu amul amateur du safé dara. kon ñu ngi wo amateur di wo aduna mhm. euh kep ko xamné lamb mo la ñor ñu ngi lay wo ci lamb joju di la wax né lamb bi ben drapeau la. Mhm. ben drapeau là ben fan là 1 million 500 là pour nous l'air ko un million cinq la benn poids lourd mhm. si bien loolu euh, dafa am touti cosaan bu ñu a dina am mhm. dix huit non 16 dix mois ngén balma à partir de 7 à 10 ans la am mais ñoñu tamit dafa am euh, lolu bokul ak drapeau bi dafa am spécial leen di defal mhm. ñom dañuy indi indi wone indi indi ngemb yu ya tam dafa am ben dina am ben mise mais ak million léegi booy yooyu seize booy la ñuy nekk mhm. waa day am huit yu jóge Fadiouth ak huit yu jóge Joal mhm. dañ leen di defal benn tournoi si jour boobu. ñu def huitième de finale quart demi ak waaw mais ay xale yu ndaw la ñuy nekk. loolu am na ci solo. voilà loolu tam dina am si bés bi. mais un million cinq cent tamit xaalis bu toll ni un million cinq cent nga def ko ci benn drapeau loolu bi ma defee poste bi démb gaa yi ngi gaa yaa ngi naan lamb ji fi mu toll léegi da ngay tëgg lamb doo gis poids lourd poids léger yi ñooy gën a bëri te ñoom ñooy gën a bëri pourquoi sóoraale wuñu leen ci ci ci ci mise bi dëgg la Lamine bokk naa si ñuy njëkk xeex ne lamb day am raw gàddu mhm. soo fàttale ko lamb bi ma mujjee tëgg fii mhm. dafa am raw gaadu mhm. am tànk am poids mooy quatorze nag yi kon lii li tax dugaluñ si euh, tank, ça veut dire jump bi mu japp demb la confirmer demb la li soga confirmer confirmé demb mooy lan lundi donc dafa xat-xat boo xam ne mu dess 4 jours dafa khat khat bo xamne ne munoo si dugal yeneen drapeau day compliqué mm-hmm. te ben fan la tamit mm-hmm. donc motax nak ci bir biir ñu ne nañ ko def ben fan mm-hmm. comme si festival la ñu ñu cabaxal ko sibir, biir euh, nañ ko def ben fan te boudé ay drapeau yu bari tamit lamb ji day goudé te dafa melni amna yenen affaire ci bir te ci bir festival dafa am yenen programme yo xamne ne vendredi bi ci suba ci be ay boru 15 heures dafa am ay programme yu am donc ñun au delà de 16 heures ñun la commencer suñu activité lamb ji pour dem donc dafa xat-xat bo xamné ne mënuñ si boole benen drapeau buñ ko ci boolee day compliqué kon lolu leer na loolu moo ñu def ko benn drapeau légui lamb tel tel aussi parce que waxtane woon nañ ko fi dañ ko fi waxtane waat lamb yi day goudé Si lo ci wax sen lamb ji ni lan ngeen di fa seen nga da ngeen bëgg ay autorité pa ay maire ay bi arrangé wu appel ngay lancé ak pour ñu chaque jour. Mm-hmm.

képp koo xam ne bëre moo la tax a jóg 16h ngir yàlla da fekk na fekk nga pare. 16h na fekk nga egsi si géew gi. loolu lañ bëgg mu doon làmb bëccëg. Mm-hmm. mu teel a commencé mu teel a tas. pour yombalal leen ko inscription yi mun ngeen koo commencé suba si ku indi licence am ñu bind ko wala. inscription yi suba suba si lay nekk. Mm-hmm. suba si bépp mbër boo xam ne da ngaa a bindu. Mm-hmm. suba si nga ñëw nga bindu. comme ça mu yomb nga xam ne boo bindoo rek nga teel a a teel a ñëw si làmb ji amateur yi teel a ñëw mun a a ñibbi Mbayang Loum Diab Diagne barke Dembo Diagne lañ fi jóge le 28 octobre ak le 29 la woon toj ko yëngal ko ñoom ñoo fi war a ñëwaat. Mbayang Loum Diab Diagne. waaw waaw comme ni ko ñëpp xamee rek. Mhm. gis nga barki Dembo Ndiaye ni ñu yëngale njànda. Mhm. bi may dugg si géew gi sa teyuma ko mhm. ndax ñoom ñaar moom macha allah dioo bu doy waar la jàpp mhm. euh, dafa nekk xale boo xam ne macha allah li muy tëgg dafa dafa jéggi dayoo mhm. mbayang moom kenn waxaatu ko gis nga demb demb ndangaan fu mu géew gu mu nekk mu neex kon ñoom ñoo joxe joxaat fii gars yi rendez-vous wa defon nañ ko mu neex fi la won ñep di ciow lamb ji. joxe wat nañu rendez-vous fi mhm. wa ñuy ñaan nak mu doon lamb bo xamne moy gëna neex bobu mhm. euh, Lamine comme euh, da am tout lu ma ci bëgg wax rek ñun li waxon pour dundal lamb ji ci tank bobu lañ nekk. Mhm. ndax bo xolé fi may wax ak yow ma nga 2 dina fi tëgg ci lamb ci mois de février bi. suma joomul juumul 3 4 février ma Manga 2. anciens lutteurs yi. am nañu date. dañuy tëgg ci comprendre te jaab day tëgg si waat comité de lutte day tëgg si kon ñuy ñaan gars yi comme li ma waxoon rek képp koo xam ne pare nga pour tëgg si Joal Fadiouth ndax dañu bëgg la ma waxoon rek mhm. waaw nit nag boo mun nga ne damaa bëgg mu cent pour cent mais yàlla nag mun na ne quarante pour cent ngay am mhm. nit mébét la am yàlla mooy mottali mais si kattanu suñ borom am nañ yaakaar ne ren moom lamb yi dina bëri si commune Joal Fadiouth ndax gars yi ñu ngi jël date yi loolu la ñëpp bëgg incha allah am nañ si yaakaar ndax dat yi ma la wax c'est déjà à mhm. ancien lutteurs yi dañuy tëgg loolu c'est confirmé Manga 2 day tëgg si c'est confirmé comité de lutte mhm. dina teug lamb bu sobe yalla mhm. kon jab jab production mhm. buguna na kon ak yenen yu wara ñew ñëw te leeray leer ne ndubaab mom saison mënul jeex te duñu teug kon nit ñi ñu ngi ñew di jël si date yi ñuy ñaan promoteur yi ak kep ko xamne lamb la ñox ku xamne teug katu lamb nga ñu lay ñaan rek ngeen gaaw ñew Joal pour jël date yi ndax Joal tam deku lamb la te ku fi teug lamb sante yalla alhamdullilah kon jab ya naa l'essentiel a été dit lan ngay jeexale lan ngay waaw li may li may tëje rek mooy. Mhm. Euh, fa dafa am fu ma waroon a njëkke mhm. ndax xam nga bu euh, kër day am bunt. Mhm. te boroom kër gi euh, dëkk bi dafa am borom. muy madame Sophie Gladima maa ñu koy wax si bi mooy borom dëkk bi. si lépp lu ñu ti nekkit dañ ko war a nuyu sargal ko. ndax nit ku ne tam boo buggee ñu jox la cër da ngay jox nit ki cër. Ah, moom maa ngi koy nuyu moom ak équipe am yëpp ndax bés bii di ñëw bu amee eh, moom moo tax te tam di ko di ko tam di ko ñaan mu mu dolli man toujours loolu laa di ko ñaan mu dolli te am nañ si yaakaar am nañ si yaakaar euh, ñu baña yakamti ndax xamna naa ne janvier bi début janvier mën mhm. na am gaay dina am yu ñu gis mu commencé mu commencé ay ligéyam kon nañ ko ñaanal ndax tay bu Sunya rek ñun suñu arrangement la ñun ñëpp mhm. ki andak mom ki andulak mom moom bu Sunya suñu suñu arrangement la ñun ñëpp mhm. kon nit ki bu jito même bu fekkee ànduma ak dama koy ñaanal yeen bi oyof ndax yeen bi bu oyofé bu dëkk bi jagé mom jagalu ko ñun lay defaral kon nañ ko ñaanal yeen bi oyof té lepp lu mu yaakaar pour indi ko dëkk ci dëkk bi té ñaax ko nak mu taxawu dëkk bi bu taxawoo dëkk bi dëkk bi ni mu war a mel ñu sant yàlla kon may santaat ak lu làmb ax lu làmb mënuma wax te santuma leen képp koo xam ne yaa ndax ñun dañu bëgg làmb yàlla moo ñu ko natoo euh, di sant ñëpp nag di sant comité de lutte bu bees bi ak grand yi di sant ancien gouloir yi képp koo xam ne daal biir alfajut Fadiouth làmb ñor na la euh, fi may daane la mooy fi may waxee toujours mhm. bugg ñëpp di soob seen loxo mhm. amateur yi di ñëw di seetaan si nañu di làmb dundaat mhm. ndax làmb Lamine ñi siy jëriñu ñoo bëri te dëgg foofu foog gars yi di si bàyyi xel. làmb du ki koy tëgg. làmb ñi siy jëriñu ñëw bari tey yéen a ngi journaliste yaa ngi nii. borom oto yaa ngi nii. jaaykat yaa ngi nii. ba maire yi da nga fay dugal xaalis. kii woy làmb ji da si am dara kii tëgg làmb ji da si am dara mbër yi dañuy am maanaam làmb moo yaatu ginnaaw. Mm-hmm. moo tax nag ñuy ñaan ñëpp ñëwaat. téyewaat si làmb fu waay mun a téye rek yow bu dee da toog sa kër mu leer la ne war naa mun a jël benn trois mille quatre mille dem def ko si làmb def ko fa ndax boo ko fa defee yaa ngi dimbali ñeneen. sa njëriñ la njëriñu Sénégal yow. njëriñu sa njëriñ la njëriñu Sénégal la. Hmm. kon na ñëpp ñëw soobu dugal seen loxo si làmb bu ñu ko defee rek tey gis nga làmb bi bu amee bu commencé tëgg par quinze jours. waaw da ngay gis dëkk bi am beneen changement. Hmm. dëkk bi day naat. dama lay jox exemple. Hmm. demb bi ndangaan di tëgg tund bi yëpp fa la ñuy daje. Mhm. loolu day indi développement si dëkk. Mhm. Lamine lam bi ñu bi ñu bi ñu mujjee bi ñu tegoon fii. Mhm. man dama génn fi gis oto yi man ba tey doo am foo jaar. donc yooyu développement la station yeeg ñëpp ay liggéey. kon nañu nañu soobuwaat si làmb di wax ne nag. billet bi sax dañ ko wàññi bi yoon. ñaata lañ bi 2000 la. ndax boo gisee lam bi passé billet bi 3000 la woon 5000. bii sa billet bi dañ ko wàññi. pour mu yomb pour ñëpp mun a ñëw. billet bi mille la. loge 4000. kon xam nga loolu na ñëpp ñëw daal. vraiment jàpp si bés boobu waaw na ñëpp jow jàpp si bés boobu. Mhm. vraiment loolu daal laa amoon loo xam ne daal maa ngi ko siy sànni. Mhm. Euh, di wax ne wax dafa dafa wax neexul. wax dafa compliqué. Mhm. ndax nga wax mu jub mhm. yalla la neex nga wax egali sa yalla la neex mhm. kon bu fekke amna lo xamne dañ koy joom si biir wax mhm. euh, ñi nga xam ñoo ñuy deglu rek ñi ñuy deglu ñu ñuy bal ak te xamne ne doomi aadama lañ motuñu waaw di waat bu baaxa baax di nuyu Sénégal di nuyu Joal Fadiouth di len di yeen ñom di yeen Lamine di ñaan li ngeen yox mu dembe doon télé bu maga maga mag ay télé yomb na yalla mun nako yàlla na ko yàlla def ndax am na ñoo xam ku leen newoon di ngeen am alal tey duñ ko gëm mhm. yàlla mooy xool ku ko neex jox ko la ko neex mhm. kon lii ngeen yor yàlla na dem ba doon ay télé yu mag mag mag a mag a mag waaw ñu ngi leen di siyaar bu baax ata Diab kon sant nañ la gërëm nañ la foofu lañ koy yemale gars yi dégg ngeen waxtaan bi l'essentiel mooy lamb am na Joal vendredi le 30 décembre 2022 ñu tegal mbëri 1 million 500 mille ci benn drapeau animation Mbayang Loum Diab Diagne ku ko ratee rate nga lu neex kon na ñëpp teel a ñëw sañse lu rafet seetaan lamb seetaan ambiance seetaan cosaan dal di ñëwiwaat ñu commencé ko ci bisimilah jeexal ko ci alhamdulilah tout droit.